auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmaan irrahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baadahu sayidina muhammadin wa ala alihi ajmain dongo yi ñu ngi leen di nuyuwaat fii ci seen seen uh, yobbalu SC ak al oustaz uh, Sidi Cissokho di leen ndokkeel bu baax nag ci yittewoo gi nga xamante ni ngeen ko darse yi nga xamante ni ñu ngi koy jàllale ci seen bi waaye di sant suñu mbokk oustaz yi nga xamante ni saa su nekk ñu ngi ñuy soññi ak commentaire yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci suuf vidéo mbokk mi da ñuy soog a dab ci suñu uh, seen yóbbal SC ak uh, leçon yi nga xamante ni jagleen nañ ko an-nahul waadih jusul awwal mën ngaa bës tous abonnement bi bëcaale cloche bi ndax le bépp vidéo bu bees mën nekk si wàll ba ci yow incha allah mbokk yi tey ñu ngi ci suñu juróom-ñeenteelu jotaay bañ tàmbalee darsi ba tey tey yi ñu war a waxtaan benn mawdon bu bees mawdon bi moo di nas nasbul fi'lil mudaari loolu la ñuy war a jàng tey nasbul fi'lil mudaari misaal yi am nañ fi ñetti misaal ci suñu ndeyjoor am fi ñetti misaal suñ kanam am na misaal yi ñëwaat ci suuf waaye ñetti misaal yi buñ ko liiroon tey dañuy wax ne uridu an uxsina assibaxata uridu an uxsina assibaxata arju an yactadila aljawu arju an yactadila aljawu yasurruni an tazurana yasurruni an tazurana lan akziba lan akziba lan yafuuza alkahlaanu lan yafuuza alkahlaanu lan adriba alqitta kon misaal yi ak misaal yi mbokk yi buñ ko xoole ñu demaat rek liir misaal yi nga xamante ne ñoo topp ci eh, misaal yi ñu njëkk wax nii kon misaal yooyu moom it am nañ ko fii ci fii ci suuf moom mu tolloog fi ñu amaat fii ñett ñu amaat fi ñett ndax benn bu nekk am na lu ko tax a jóg fii ci misaal bi dafa wax ne izan tuqiima indana izan tuqiima indana tujiibu bi dalika man qaala sa azuuru madinatakum tujiibu bi dalika man qaala sa azuuru madinatakum izan tarbaxa tijaaratuka izan tarbaha tijaratuka izan tarbaha tijaratuka tujibu bizalika man qala saakunu aminan tujibu bidhalika man qala saakunu aminan izan yafsuda alhawaa'u izan yafsuda alhawaau tujiibu bizalika man qaala sa ughliqu annawaafisa tujiibu bizalika man qaala sa ughliqu annawaafisa ji'tu kay ata'allama xarajtu kay atanazzaha ji'tu kay أتعلم خرجت كي أتنزه أتعلم kay أخدم الوطن أتعلم كي أخدم الوطن mbokk yi bu ñu xoolee suñu misaal yi xoolaat suñu misaal yi xoolaat suñu misaal yii xoolaat misaal yi mujj yi ana luñ ci mën a seetlu danañ gis ne mbokk yi uriidu mooy bëgg naa an ngir oxsina may rafetal as sibaaxata feey mooy dama bëgg di rafetal sama feey mooy dama bëgg mën a feey feey bu rafet ñu gis ne lii ban façon fi'lu la bu fekkent ni ñu ngi koy fàttaliku suñu fi'lu yi weesu aywa kon dañuy gis ne lii fi'lul mu mudaarix la day gis ni fi'lul mudaarix mujjantal gi fii dafay am maska damma waxoon nañ ko ci suñu dars yi weesu li ci bëri waaye gis nañ ni tamit faaw mu tàmbalee benn ci ñeenti araf yi nga xamante ne waxoon nañ ko muy alhamzatu wa nuun wal yaa fii dane uridu bëgg naa kon fi'l bi fi'lul mudaarix an uxsina mbokk yi an uxsina oxsina gi ba tey mënta nekk ismu mënta nekk xarf kon fi'lu rekk la mën a doon te mënta doon fi'lul maadi ban fi'lu la mën a doon mënta doon fi'lul amr ban fi'lu la fi'lul mudaari la waaye gis nañu fi'lul mudaari niñ ko baaxoon xame mooy njalbeen gi dana am hamza wala nuun wala yaa walla taa te it mujjantal ga masque dàmm lañ ciy gis mbokk yi buñ ko seetloo ci uxsina ak yaatadila ak tazurana dañuy gis ne arju mooy bëgg naa maa ngi am yaakaar an yaatadila al jaww mooy maa ngi am yaakaar jaww ji yemoo maa ngi am yaakaar jaww ji yemoo yasurru nii dana ma kontaanloo an tazurana ci nga seet si ñu mooy nga ziyaare si ñu lan ak ziba duma wax lu dul dëgg lan ak ziba duma wax lu dul dëgg lan yafuuza alkaslaan ki nga xamante ne dafa tayal du gañe mukk lan yafuuza du gañe kan alkaslaanu ki nga xamante ne dafa tayal lan adriba duma dóor mukk alxitta muus mi kon isan tuqiima indana léeg nga nga jékki dégg ab tontu bu mel nii isantu ximaañ danaa kon bu boobaa da ngay dal ci ci ñun ngay dal si isantu ximaañ mooy da ngay dal si si loolu ab tontu la ci koo xamante ni dafa laajte ne euh, danaa koo xamante ni dafa wax ne danaa ziyaare ji sa dëkk masalan man maa ngi dëkk Kédougou kii wax ma ne ma danaa ziyaare madinatu Kédougou ma ne ko kon léegi bu boobaa da nga ñëw wàcc si si ñun dalal ñu kon isan tuqiima indana kon jëf yi ñëwagut gis nga kalimat tuqiima isan tarbaxa kon danga nga bénéficié wu ah tijaaratuka kon sa sa sa njaay dana bëne dama am bénéfice loolu ab tontu la ci koo xamante ni dafa wax ne sa akunu aminan danaa nekk ku wóor bu boobaa mu ne kon bu boobaa kat njaay mi ngay jaay dana nekk njaay mu mu am bénéfice kon tuji bu bisalika da nga koy tontu koo xamante ni dafa wax ne man xaala mooy ku wax ne sa akunu aminan danaa nekk ku kon isan tarbaxa danga nga bénéfice wu isan tarbaxa tijaaratu sa commerce dana am bénéfice loolu da koy tontu ci ku wax ne sa akunu aminan isan yafsuda alhawa isan yafsuda alhawa kon isan yëf suda alxawa gii dañ koy tontu kan koo xamante ne dafa wax ne sa uxliqu an nawafisa danaa tëj li nga xamante ne mooy fenêtre yi képp ko wax ne danaa tëj fenêtre yi mën nga koo tontu tontu bu mel ni isan yaf suda alxawa kon boobaa ngelaw li isan kon isan mooy kon yaf suda dana yàqu alxawa ngelaw li mu ngi mel ni néeg boo xamante ni boo ko tëjee ngelaw li du mën a dugg fenn ay nit nekk fa bu yàgg tuuti yëpp dafay tàng moo tax mu ne isan yaf suda alha kon loolu tontu la ñeel koo xamante ni dafa wax ne sa ughliqu an-nawafisa jiitu dikk naa kay ataallama ngir jàng dama dikk ngir jàng xarajtu génn naa kay atanazaha ngir ma doxantu kon jiitu dikk naa mi wax kay ataallama ngir jàng xarajtu génn naa kay atanazaha ngir ma doxantu ataallamu maa ngay jàng kay axduma ngir ma liggéeyal alwatana réew ma wala bokk réew mi ataalamu damay jàng kay axduma ngir ma liggéeyal alwatana réew mi kon mbokk yi bu ñu xoolee fii danañ fi seetlu ay afaal mudaari yu bëree bëree bëri yoo xamante ni seen mujjantal fatxa la fatxa fatxa fatxa fatxa fatxa fatxa fatha fatxa fatha fatha kon gis ngeen mbokk yi maanaam misaal yi fi nekk yëpp dafa lamboo ay afaal mudaari yoo xamante ni seen mujjantel dañ ko mas mas ka fatha te loolu baaxoowuñ koo xam léegi loolu kañ lay mën a nekk kañ lañuy jékki-jékki jël afaal yi nga xamante ne ñoom ñooy al al mudaari au lieu ñu koy maas masque dàmma ñu jël masque fatha def ko ci. loolu kañ lay am mbokk yi loolu la ñuy gis ci xaayida bi mu jox ñu xaayida bu leer bu leer nañ ci xaayida bi mbokk yi ñu xool dafa wax ne kon ndekete isan tarbaxa boobu ma doon dégg ak lan adriba boobu ma doon dégg ak yeneen am sile yi nga xamante ne ñoom laa weesu ndekete li ko waraloon mooy lii di ñëw mbokk yi dafa wax ne yun sabu des na nasab mooy des na maas maas ka fatxa ci mujjantelu fi'lul mudaari yun sabu al fi'lul mudaari oh, mooy dees na nasab fi'lul mudaari kan kañ lañ koy nasab mata sabaqahu mooy saa ko jiitoo moom fi'lul mudaari lan ahadu nawaasibi al arbaati benn ci yii di nasab ñeent lañ yooyu noonu mooy an lan izan ak kay an mooy ngir lan mënees na ko fire déet isan kon kay moy ngir kon yi moom mooy maanaa xaraf yi nga xamante ni moom la ñuy jàkkaarloo mbokk yi araf yi saa bu ñu jiitoo benn fi'lul mudaari waxuma fi'lul maadi waxuma fi'lul amri waaye benn fi'lul maadi saa buñ ko jiitoo fi'lul ma mu fenn mu mudaari saa buñ ko jiitoo fi'lul mudaari boobu kenn dootu ko maas maas ka damma waaye maas ka fatxa la ñuy maas mu mudaari boobu ci mujjantal ga mbokk yi an lan izan kay nuñ leen di woowee ñu ngi leen di woowee adawaatu nasb mooy ay bagage lañ yoo xamante ni bagage yi nasab bagage yoo xamante ni nasab moo ko moom ndax lu tax mooy bu ñu duggee ci fi'lul mudaari dañuy soppi masque ga ca mujjantal ga daal di koy mas masque yat loolu moo tax ñu leen di tudde adawaat al fi'lul al mudaari'u kon an lan izan kay saa bu jiitoo ab fi'lul mudaari' fi'lul mudaari' bi dañ koy mas masque fatha comme yii nii yëpp ay misaal la an ah, lan izan ak kay gis nga fi fi'lul mudaari yi ngay gis ni yëpp benn ci xarfu nasb yooyu da leen jiitu moom moo tax fi mu toll nii melut nii ci mujjantal ga ndax uriidu dara nekkul fii bu fi dara nekkoon ah lan uriida ngay wax bu dee lan bi dafay nekk fii lan uriida ngay wax comme dara nekkul fii mu mudaari bu fi dara nekkul maska dàmma lañ koy mas ci mujjantal waaye bu ko an jiitoo walla lan jiitu ko walla isan jiitu ko wala kay jiitu ko feelul mu daara boobu maska fatxa lay am comme ni ngeen koy gisee nii maska fatxa fatxa ak fatxa kon mbokk yi lii mooy li nga xamante ni moom lañ leen euh, indiloon ci dars yi xanaa ñu xool rek tamarin yi ngir ñu mën koo def euh, laata ñoo jàll ci suñu beneen leçon kon bii moom moo nekkoon juróom-ñeenteelu leçon ñu ngi ci doon waxtaanee benn tomb bu am solo ci mawduat ilmu naxu mu nekkoon nasbu al fi'li nasbul fi'lil mudaari'i mooy nasab fi'lul mu mudaari moom lañ doon gis noonu kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ci am sila e, kon ñu xool rek yenn tamarin yi bu ko defee ko mbokk comme ni ko gisee nii dafa wax ne iqra al jumal al atiya wa ayin al afaala al mudaariata al mansuubata fiha wazkur al sababa fi nasbi kullin minha kullin kulli fi'lin kon dafa wax ne afaal yi mooy yi ngeen gis suuri bi du ci dox ni danga koy liir nga daal di mel ni lu génnee fi'lul mudaari ba ci nekk fi'lul mudaari boo xamante ne mansuub la nga wax sabab bi tax ñu nasab ko mbokk yi loolu lañ ñu laaj ci amsila yi ngeen di gis nii xam naa duma leen ko liiral waaye dama bàyyi ngeen liiral ko seen bopp incha allah mooy amsila yi ngeen di jàkkaarloo benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett ba fukki am si la kon lañu lañu laaj sas ñu ko pour ñu war koo war koo war koo xool génne fi'lul mudaari ya ci nekk te mu nekk mansuub ñu wax sabab bi ko sab tamit mbokk yi kon fii la ñuy jeexalee suñu jotaay di wax ne wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu